أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونجي سنتاتي الله بباخ دي جولي جيرانتي بي صلى الله عليه وسلم ñu yàlla mayaatee ñu ñëwaat fii tey ci Touba ci màggal gi nga xam ni moom lañuy ñu mam sëriñ Serigne eh, di ko ànd ak njaboot gi di ko sant la yàlla ma ñëw fii nag tey man maay Serigne Maodo Cissé bu Pire eh, ànd sama njaboot yi ma war a àndal ak délégation yi. ñëw ci bu tedd bi nga xam ne bis bu la nga xam ni maam Serigne Touba dafa demoon liggéey sunu liggéeyal sunu borom subhaanahu wa taala liggéeyal ñu nit jaam yëpp nag ndax Serigne Touba damay wax ni du Serigne Touba am France du Serigne Touba am États-Unis du Serigne Touba am fenn Serigne Touba am Sénégal la kon ñun waa Sénégal ñoo ko war a sant yàlla. waaye ma jiital nag ci samay kaddu ak nuyoo ak sama ziyaar ci sunu mag ju baax ji fi nekk di cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke al Bachir yal na yàlla may ko wér ak gudd fan may ñu ko e, ndax tabarkallaahu bi mu toogee jataayu maam Serigne Touba ba tey kenn ku ne gis na ab liggéeyam kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ndokkale ci bis bi ndax bisu mbégte la eh, man nag ma daan fi ñëw di ànd ak sama waajur alxaaji Amat Sise radiallahu taala anhu ci jamono Baay Fallu Mbàkke jamono Baay Abdul Ahad lu ci nekk yàlla dimbalee na ma ma ànd ko ak moom ñëw ku fii ba ni Cheikh Abdou Lahad ni sama baay génnee àdduna may continuer loolu ci jamono baay Abdou kër gi ma toog tey mën naa ni bokk naa ci ñi fi sëriñ Abdou Lahad Mbacke jëkk dalal ndax booba ku ñu wax Baare Njaay moo fi nekkoon saa yu ma ñëwee mu ni ko yóbbul ma sama doom ji ca sama néegu bopp ba ma daan fanaan ca Touba ci bi daan fanaan fee ca kër Serigne Touba ji loolee musul deñ benn yoon ba ni mu demee àjjana ñi ko fi wutu ñépp tamit kenn ku ci nekk bu ma fi ñëwee wéyal nga loolu Baye Cheikh Abdoul Khader Baye Cheikh Salih waaye sëriñ si Cheikh sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Alxaaji Baara sunu mag yu baax yu tedd yooyu ba ci sëriñ Muntaxa mi tey macha allah kon ñu sant ko bu baax a baax mu mel ni que e, kër yu diine yi islaam yëpp fi teew mën naa ni jamono ba ma fii ñëw ci jamono booba ku dul sunu mag yu baax ji nga xam ni moo wàcc liggéey bu yàggul muy sëriñ Chérif Abdoulaye Thiaw yal na yàlla dolli ay leeram tas ñu ci barkeem moom rekk laa fi daan fekk ou bien su ma ñëwee ma fekk ko ci kër gi sama mbay Abdou Lahad jox ñu ay néeg ñun ñaar ginnaaw bi sunu doomu baay bu baax bu tëdd bi tamit di sëñ Habib Sakho ci jamono booba moom rekk moo ñu fi daan wettali eh, loolu nag musul dañ ba tey ji lislaam bi yëpp a fiy teew tey mu mel ne ko kon loolu ak cant yàlla la te mooy li nga xam ni moo gën a rafet moom la mag ñi liggéeyal di liggéeyal njaboot gi yëpp nag loolu mosul deñ macha allah e kon ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaxa di nuyu itam njabootam gépp nag waaye ñu jaare ko ci ki nga xam ne moo yore doom muy sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khader sunu rakk ju baax ju tedd jooju nga xam ni tabarakallahu ay magam ñoo ko wóolu ba jox ko kaddu yoonu murit loolu nag ak cant yàlla la waaye mu doxe ko doxewun bu rafet taxaw ci taxawaay bu rafet ànd ak islaam bi yépp nag bu ñu fi ñëwee kenn ku ne def lay recevoir waxtaan ak yow sant la gërëm la ci turu sëriñ bi fa mu ànd ko comité d'organisation bi sunu sunu doom sëñ Ousmane Mbacké bu Cheikh Gaynde Fatma ànd ceeg moom ak comité d'organisation bi rawatina waa xidma ak waa wilaya ñu gis itam ñoom seen liggéey rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax Eh, tabarakallahu bu ñu ñëwee dinañu am itti ci ñun lool eh, su ma ci tuddee sëñ Abdou Lahad te tudd ci sëñ Assane Mbeng ak ñi nga xam ni ñoom la ñoo nekk ci organisation boobu ñu doy na sëkk ndax wax dëgg yàlla ñoom ñooy bunt yi kenn ku ci nekk danañ la jox sa dal lépp lu war ci yow tam ñu def ko waa wilaaye itam ñu am na leen ngërëm lu rëy ndax taxawaay bu rafet lañ ciy def dëgg yàlla si nu dara du manqué kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla nag dëkk bi ak lislaam bi yal na ko yàlla gën a jëme kanam te it macha allah yoonu islaam dafay jëm kanam ndax ni ko maam suñ Tuubaa defee noonu la ko mbokkam mu baax ma ca Tiwaawan defee muy maam Seydi Hadj Malick mbokkam ma ca Yoof mbokkam ma ca Njaasaan mbokkam ma ca Kaolack kenn ku ci nekk ci ñoom te ñoom ñëpp dañoo jaxasoo woon nekk benn xaritoo woon ba kenn ku nekk sa liggéey kenn ku ne ram ràññee nañ ko eh, lislaam nag lii mooy lii war ci moom kenn ku nekk ba sa morom xewlee nga jóg dem fi mu ne incha allah fan yii di ñëw mooy gàmmu Tiwaawan muy mu mu bi si mawlud du Tiwaawan rek waaye ñoo ngi koy def Njaasaan ñoo ngi koy def ñoo ngi koy def euh, Kaolack ñoo ngi koy def Thiénaba ñoo ngi koy def fu nekk te fu ci nekk bu jotee ka yàlla teg ca bopp ba su demalul boppam yabal ay rakkam rabal ay njabootam ñu dem teewal ka kon loolu mooy li rafet kon ñoo ngi ñaan yàlla képp koo xam ne ki bàyyi nga sa itti ak sa soxla ñëw ci màggal gi ak ci gàmmu yi ñuy séentu yal na yàlla faj sa xaajo yàlla nag dooleel ñu jàmm ñu ñaan yàlla jàmm ci réew mi def ko ci islam bi yëpp nag waaye def ko ci àdduna bi itam niti àdduna itam yàlla defal ñu jàmm te defal leen ko ndax itam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa xalaat mooy defar réew mi mooy sa bëgg-bëgg kon kenn ku ci nekk la nga xam ne mooy sa yéene ci réew mi yal na la ko yàlla mottali ñu ñëw fi rek kër pour euh, loolu ak i tamit gën a feddaliwaat bokk gi feddaliwaat kóllëre gi nga xam ni këri diine yooyu maanaam këri euh, mag ñu baax ñooñu amoon nañ ko démb ak bërki démb ndax ñoom kat seen kóllëre ak seen seen taxawaay dara du ci manqué Eh, lii nag wax dëgg yàlla musul deñ maa ngi fàttaliku en 1964 ñëw naa fii maag sama baay Alxaaji Amat Si sama waajur bu baax wu tedd bi fi nekkoon di Baay Fàllu Mbàkke ko bi mu ko woowee ba mu ñëw yàlla defal na yàlla dogal na keroog maag moom ñoo ànd booba kër Baay Fàllu gii eh, barak barak moo fa nekkoon waaye jamono booba barak kenn amu ko sax faf waaye nag yàlla mayoon ko sama bay fàllu fi mun daan nekk keroog ci baraag boobu la woon bi ñëw akse see keroog ginnaaw ba nga xamee ni tata sama bay fàllu tatagal na ko ñoom ñaar ñu toog la ko jëkk wax daf ni ko Amadou mu ni ko si mu ni ko Mbàkke mu ni ko man dey fajar gu nekk dafa wa gestu ci wetum di jooram ni ko waaw amadu lii lan la mu ne ko lii dafa mel ni wax kaay yooyu wax rajo la mu ne ko waaw xam nga lu tax ma jënd ko mu ne ko déedéet mu ne ko sa jëmm ji rek a tax ma jënd ko ndax yow sa alxuraan dafa neex fajar gu nekk yow rek lay déglu ne ko xam nga ñaata lay jar mu ne ko déedéet mu ne ko fukki junni booba ku dul sëñ Fallou yoroo fukki junni maanaam li tax ma agsi ci point boobu pour wane rek ne mag ñi ñoom seen bopp dañoo bëggante woon dañoo soppante woon ndax xam nga ku na sëñ Fallou nga xam ne alxuraan kese la ah, bu taxawee di wax ak mbokkam rakkam a Amar Cissé ni ko sa alxuraan rek lay déglu ak mbaaxam rek a tax te la it loolu la ko yàlla mayoon nag wax dëgg yàlla sama baay mu ne ko nag li ma lay gën a doyee mooy islaam bi ak bokk gi ndax dafa am lu yër ci diggante bi loo xam ne su ñu ko bàyyee mu si man nañoo taqale moo tax damay wax ni affaire weer yi ñuy dégg démb laag barki démb subaa la du tey de yàgg na lii 1964 la mu ne ko loolu xew buñ ko bàyyee mu agsi dinañ taxale ndax démb la suba la ginnaaw suba la dafa xew ma bëgg nag yow Amadou te am nga masla ak këri diine yëpp nga demal ma ci sama suñu nawle diina yi nga waxal ma leen ni nañu fexe ba ñun ñëpp ñu nekk benn ba loolu di ñëw bu mu ñu mënal dara mu ne ko jaaral ma ci sama mbokk ma ku baax ka ku tedd ka alxaaji abdul aziz soo fa jógee da nga dem Njaasaan soo fa jógee da nga dem Cenaba da nga dem kawlak da dem ca Laayeen ya fu ci nekk yàlla dimbaleen na ma maag moom ñoo àndoon bi ñu fi jógee fii keroog Touba dañuy ñëw ba pir mu ne chauffeur bi continuer ñu dem Tivaouane ñu dem seet si Alaaji Abdul Aziz ñu ñëw seet si ko moom itam fekk na ko tëdd ñu ngi tëdd ci benn matelas soonu ci quoi ah, si dama ñëwoon day ziyaar la waaye andil la nuyoo sa mbokk ma mu ne ko kan mu ne ko Serigne Fallou mu ne ko ana ko ma ana mu ma nga fay baax rek mu ne ko mu ne ko ma nga fay baax rek mu ne ko nag daf ma yónni ci yow te mission la boo xam ne ma ko sas ni daa ñëw ci yow waxtaan ci yow ba noppi soog a dem feneen fi ma wax ni naa fa dem daal di koy wax yóbbante bi sama papa Alaaji Abdou Aziz ku ne xamoon na baaxam ak euh, yaatoom ak bëgg nekk islaamu bennam keroog dafa bëgg lool daan ni ko ah si wax ko wax ko wax ko loolu bi mu ko waxee mu ne ko Cissé mosoo ma wax lu ma neexee ne li Serigne Fallou wax kon nag jërëjëf Cissé daal ci bëgg lool saan ñu jóge fa dem Ceneba ci ëllëg sa jóge fa dem Ndiassane ci ëllëg sa jóge fa dem booba Ceneba bàyyi El Hadj Ibrahima ñas ma fa nekkoon El ah, Hadj Ibrahima Seck ma fa nekkoon. Ndiassane Baye Sidi Lamine Kunta moo fa nekkoon Yoff Baye Mbañoon laay moo fa nekkoon fu ci nekk yàlla baaxee na mag sama papa ñoo fa ànd ba ñuy dem ba kaw Kaolack sunu baay Alxaaji Ibrahima ñas moo fa nekkoon ci jamono booba ku ci nekk boo ko alxaaji sunu sama papa waxee yóbbante yónnent Baye Fallou Mbacké dafa békk keroog maa ngi fàttaliku ndeysaan bi mu ko waxee Baye Alxaaji Ibrahima Niass dafa ni bëreet dugg ci biir dugg ci biir yël gël benn mu mu xam ñoo ngi ko ñëw ca kaw ba ci suuf ni ko nag wax bi nga xam ne moom la sëriñ Fallou wax lii laa la ciy décoré solal ko yére yee keroog loolu duma ko fàtte mukk e loolu mosul deñ benn yoon nga xam ne kon ñoom benn lañu mës a nekk benn lañu mës a bëgg waaye benn googee nag mooy daw mooy law ba nëgëni ba ci njabootu ba ci ay sëtam yi tey sëti sëriñ tuubaay yi e ñu rafetal ko nag ba mu agsi ba ci sëriñ Muntaxa bi nga xam ne tey ku ne xam na taxawaayam ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi amul kër diine buy xewlee te du sëriñ Muntaxa dafa jël ay ndawam yónnee ba bu tabaski jotee noon lay def gàmmu jotee noon lay def leneen lu am tamit loolu lay def kon moom it ñoo koy ñaanal yàlla wér ak gudd fan yàlla bàyyi ko suñu kanam mu mel ne daal loolu rek lañ doon sànni di ko nuyoo mbooloo mi yëpp di ko nuyoo senegal gépp ñaan yàlla daal suñu Sénégal gi yal nañ ci yàlla defal jàmm ak ak barke eh, gën a dëgëral islam bi gën a dëgëral niti islam bi ñu nga xam ne tey ñoom lañu ñu yaakaar yàlla gën leen a taxawal boo demee Tiwaawan noonu la sunu mag ju baax ji Cheikh Seydi Mouhamadoul Babacar Sy Mansour de doxale boo demee Njaasaan noonu boo demee Thiénaba noonu boo demee Yoff noonu man mi nga xam ne ku ne xam na ni sa man kër yooyu yëpp ci nekk xam naa la te musuma dañ dafa deñ dafa dem eh fa tabarkallaaw kenn ku ci nekk su may waxtaan ak yow damay gis ni nga bëggee ni nga bëggee sa morom kon nag loolu lu rafet la yal na ko yàlla jëme kanam eh lii daal lañ doon sànni di ko nuyoo senegal gi yëpp di ñaan yàlla ku fi ñëw ci màggal ga yal na yàlla faj sa ajo nawet bi tam yàlla nañ ko yàlla mottali ci jàmm xew-xew yi nag bari na waaye yooyu yëpp eh dañu war a xam ne rek sunu borom mooy kii dogal te lu ko neex lay dogal. Eh, nañu gënaat delluwaat suñu bopp ci yàlla delluwaat suñu bopp ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam gën ko bëgg gën a fonk kilifa yi islam bi nga xam ne ñoom la yàlla booleel tey nañ leen gën a jox cër parce que tamit ñooy suñuy bunt ci kër yëpp nag kon yàlla yàlla bàyyi leen suñu kanam ñu gën a delluwaat suñu xel ak suñu xalaat ci yàlla tey jéggalu nag tey tuub tey ñaan yàlla yàlla li mu yor doywu ko dara da koy maye yàlla li mu yor doywu ko dara da koy maye bakkaar yi bari na waaye yooyu yëpp matatik doomu aadama la waaye nañu delluwaat suñu bopp ci yàlla rek yàlla jéggal ñu te ñaan ko mu may ñu ah tawféex ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa ñu baax ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu